mi ngi nii pare conseil présidentiel bi si région bi mais vraiment kontaan trop si conseil bi parce que non seulement def na ay déclarations yi fortes euh, comme par exemple construction pont pont Témanto mais aussi vraiment jël na ay mesures am solo si wàllu emploi des jeunes si wàllu infrastructure loolu vraiment mu nekk lu am solo te ñu koy rafetlu bu baax baax. mais tey ñu gis ni commencé ngeen tàmbale ngeen liggéey si mbandi opération ci infrastructure yi.

walum département eh, ci région bi lolu ñu mëna wax ci lolu wa pont bi pont bi lu am solo la moo dafa déclaration yi gën am solo parce que vraiment pontemento mu nek c'est une vieille demande. donc té bu amé ponté Pontevedra non seulement nous permettre ñu nek département de goudamp ñu mun dem facilement à Goudamp mais aussi nous permettre aussi nit ñi mëna def activité commerciale par exemple donc mota vraiment pont construction pontemento ñu koy rafetlu contenance nañ su baax a baax. allez merci.